asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ni mu ko baaxoo defee at mu ne saabu weeru safar teroo cheikh mouhamadou muntaxa mbàkke dikk ci daar bu isbu tarxiya yeesalaat na ko tey ji benn pan ci weeru safar dëppook altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ut ginnaaw bu ko jëwriñi daari isbu tarxiya teeroo moom sëriñ Youssou Diop ak lenn ci yi sëriñ bi agsi na ci barab bii nga xamante ni moom la ñu ko jaglee ci biir daari isbu tarxiya muy Taïba nuyoon teeg lenn ci mbooloo mi nga xamante ni dikkoon nañu gàttandu suko ci tànk mu tedd yi Ansaaru Dine Mbacke ma koy teewlu dama daf ma fàttali ay wax yoo xam ne si Abdou Lahad Mbacke bu baax ma da ko waxoon dafa woon ah yéen ñi dëkk Touba dama bëgg wax ak yéen dafa am ñoo xam ne sunu borom dafa waxoon ak ñoom am leen daloon ma bañ ma bañ mu dal ñu noonu ma ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum ña ko yàlla suñu borom waxoon bëgguma leen daloon mu dal ñu ndax Sëñ Tuubaa fii te dañu fépp defal nañu lépp amul lenn lu nit di yóotu ba am ko suñ bee la ko fàggu kon nag nekkal ko ci dëkk bi nekkin wu sell war naa yomb noo ko bëggee mooy nekk nii lay mel nii nga xam ne dafa am nga xam ne lii waaye su ma amee su amee ndigal dafa saa su ne ay kuréel yi am na kuréel bu war a dem tamit léegi am na kuréel bu war a dem tamit ñu ngi amee ndigal dinañ ñëw da nga war a nekk xas bu doon am dañuy sant sant naa ko. ci nga xamante ni gën na cee fës muy njàngum xasida mi nga xamante ni kuréelu daara Hizbut Tarqiyyah bu Thiès am na tawféex taw te daje feek sëriñ bi ci biir waajtaay yi nga xam ne ñu ngi koy def ci dundal weer yi diggante jumaa ji pénc mi ak kër sëriñ bi foofee ca daaru Tanzil ñu yëkkati fa ay xasida ci ak diir boo xamante ni sëriñ bi teewlu na ko laata muy jiite mbooloo mi li ghayri ma nga yàlla ci man. ci daara ji seere daara ji rek. jërëjëf Jaya Vital. ginnaaw julli géegi nag ci la ñaanal mbooloo mépp wane mbégteem ci dikk gi nga xamante ni dikk na ko ci barab bii nga xam ni ay at a ngi nii saa weeru safar teroo mu dikk fi ngir tànk ziar ak nemmiku ak soññee ak firndeel cofeelam ay dongo yoo xam ne dañoo laxasaayu ci toolu Serigne Touba. li ñëw gi bette bette terewul lenn ci dëkkandoo yi nga xam ne ñoo dëkk ci daara ji yéeg nañu teewu sëñ bi fii ci daara ji boo xaar ko ci biti gàttandu ko bi muy ñibbi mu ñaanal leen ànd ak mbégte ملكة الماء ولي نور ربي الأولي لقد لبثت قولي ومن أمام فزمان يقود لي الصيام منجل سائل وقيام Yeah.

gungee ba noppi nag sëriñ Youssou Diop mii jëwriñ daara Hizbut Tarqiyyah dellusiwaat na ci yëg yi nga xam ne am nañ ko ci bis bi ak cant goo xam ne ameel nañ ko Cheikhul Khadim ci tawfiix ji ñu Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké defal di ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak nun dañ fiy sàkku ngërëm waaye barab bi sëñ Touba ko moom ndokk bi nga xamante ne mboolem njabootu sëñ Touba xam nañ loolu te itam xam nañ ne ñi fi nekk ñoom la ñuy liggéeyal ñoom la ñuy xëyal ñoom la ñuy gontal Cheikh Mamadou Mountakha waxuma sax ne ma ñu maa fi ñëw kon ci betteel la fi ñëwee moo ko jublu ndax sëñ Saliou Mbacke mu baax ba daan nañu wax ne kuy ñëw sa kër jarul nga yëglu euh, ñëw na fi nee na li mu bëggoon mooy tànkam tege ci daara ji rek ci benn fanu safar bi loolu nag lu lu doy sëkk la kon bu bu ci yemoon mu day waaye fii la jullee gee toog saafoon teg dongo yi ñu jàngal ko xaside yi tasanteeg kuréelu Cees ne fi mooy kuréel mag bi ndax dafa ñoom jamono yi dañuy dundal euh, ca Tanzil di ko dundal ci jumaa ji kon kuréel yi saa su ne ñu fi waaye doonu lu ñu waaj ngir mën a sax daj euh, kuréel mën fee ne waaye bi mu dikkee euh, li mu wax ne moo ko yëkkati muy teg tànkam ci daara ci ci benn panu safar ak wan ñu ne dafa ànd ak nun fas yéene ah, fu mu jëm mu ànd ko ñun tey ak ëllëg loolu nag ci kuy dox dafa am déggin wu am solo dégg na nag ñii ci biir waxtaan bi mu wax bi mu bi mu def démb ci woote màggal gi nee na dafa feddiliwaat ne sëñ Tuubaa wàccoo naag képp ku baax ku mës a ñëw ci jamono du yonent du euh, malaayka du nitu yàlla du islaam islaamiya wàccoo naag ñëpp kenn ku ci ne li ko waroon ci diggante mag yow fàggul na la ci ba fàggul la ci loo xamante ne kawe na sa njort nun ñi ko yaakaar itam kenn ku ci ne defal na la loo xam ne mënuloo ko sa bopp say bokk mënaluñ la ko te doon na loo xamante ne dara mënu ko jeexal muy àdduna di àllaaxira ku la fàggul loolu yow jenn yitte rek nga war am lan mooy bëggug sëriñ bi bëggug sëriñ bi nag ñun lott nañ ci mënuluñ ko lenn am te kon am na luñ koy mënal sëñ bi nee na ah mooy laxasaay ko wan ginnaaw àdduna médd mi nga xam ne sëñ tubaa mosu koo teg fen wan ginnaaw lépp wutali sëñ tubaa lii ñun waruñoo tal sax suñu bopp ñun waruñoo tal suñu bopp ndax sa bopp danga nga koo joxe waaw la wa xayaati wa mawti wax dëxoo wala woo sirri wa jëhri wa yux nii ni bi alaafi loo war a dese amut kon loolu nag euh, wax ko rek dafa warut doy nañ koy dund mooy saa su ne ñuy xëyal sëriñ bi di gontal sëriñ bi di jànqal sëriñ bi di rañaanal sëriñ bi ba nga xam ne xam nañ ne ñun suñu bopp sax taluñu ko lii daal képp ku ko mën a matale ah bu ñuy lim gor yi nañ la ci boole ndax sëñ Tuubaa moom kenn mënta lim ne kii defal na sëñ Tuubaa dara kenn ku ci ne moo la féete fépp waaye nag la maam Cheikh Ibra Fall waxoon moom mu mi nga xam ne day jàngale nan lañu àndeek sëñ Tuubaa nee na sëñ Tuubaa bu boole woon Pastef fu murit yëpp mutul àqi sëñ Tuubaa kon dafa mel nii rek euh, si ndax bu dar guy murit bu ne loolu nga am ci sëñ Tuubaa loo bari la bari la si ndax bu dara guy nga kon fa nga dar rek nga xam kon ñun euh, ñoo ngi sant Cheikh Mouhamadou Mountakha ci safar bi waaye tamit ñoo ngi feddaliwaat suñu laxasaay ci ginnaawam ñoo ngi yeesalaat suñu jaayante Hizbut Tarqiyyah moom armée sëñ Tuubaa la boo xam ne kuy wut noflaay bu fi bindu de waaye képp ku yëg ne am nga mar wu tar ci soobu liggéey sëñ Tuubaa bu amul noppalu mbooloo maa ngi nii kuréel baa ngi duñ ci rax dara jërëjëf